alors de de retour pour la seconde partie de cette édition ñu daal di koy euh, door ak ki nga xamante ni moom moo di Moustapha Thiam donc exigence IT bu Paris la nekk moo ko sax jiite daanaka il est auteur également euh, euh, mi l'adversité euh, mon allié en même temps di yëngu ci li nga xamante ni mbirum entrepreneuriat la tey sax loolu la ñuy waxtaanee daanaka ñu ngi lay nuyu Moustapha di la dalal ci plateau bi. oui salaamaaleykum Astou maa ngi lay nuyu di lay ziar bu baax a baax. di lay jaajëfal di lay féliciter par rapport à tout ce que vous faites par rapport pour le Sénégal surtout Euh, contexte bu ñu nekk ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di nuyu spectateurs yëpp ñu ñuy déglu. Mm-hmm. alors exigence IT. alors exigence IT dafa nekk IT c'est un cabinet de recrutement donc ñun ñu ngi yëngu ci lépp loo xam ne emploi la mais surtout aussi transformation digitale. donc ñu ngi basé wu ci Paris donc foofu lañ nekk en tant que sénégalais mais en tant que aussi chef d'entreprise Euh, qui œuvre dans tout ce qui est euh, insertion professionnelle des jeunes parce que dafa nekk loo xam ne nit ku nekk soo jàngee ba pare lu war mooy nga ut liggéey donc euh, loolu la ci lañ nekk ci lañ yëngu di accompagner aujourd'hui toutes les entreprises euh, quel que soit leur domaine d'activité euh, dans leur euh, insertion professionnelle en cherchant les compétences yoo xam ne ñoo gën a jafe ci àdduna bi di leen di mettre à disposition donc loolu mooy sunu liggéey en même temps aussi ñu ngi diriger benn société boo xam ne c'est dans tout ce qui est transformation digitale parce que dañuy déployer ay logiciels di accompagner gouvernement yi mais aussi accompagner le secteur euh, public et privé dans dans leurs projets. bu ñu nee yi nga xam ne dañuy dem à l'extérieur à l'étranger jàng ba pare. en tout cas euh, lu nit yi di gën a soxla mooy ngeen def retour mhm. au bercail mais tey boo leen demee implanté wu à Paris pourquoi pas exigence était à à Dakar pourquoi pas parce que c'était même l'objet de mon de ma de ma présence ici fii ci fii ci ci Sénégal parce que ñun dañ gëm suñu réew te lépp lu ñuy def rek suñu suñu euh, suñu réew lañ ci jiital euh, dañ demoon jàngi bañ jàngee tamit yàlla def na tamit ñu am xam-xam ba ñu amee xam-xam tamit lépp loo xam ne ñu ngi koy taxawal dañ ci xool suñu réew di ñuy xool tamit suñu mbokk bu nekk su nekk ci diaspora euh, quand on parle Sénégal c'est pas euh, les gens qui vivent Sénégal il y a aussi des milliers de Sénégalais yoo xam ne ñu ngi ci diaspora bi nekk ci condition yoo xam ne tamit euh, yu yu doy waar il faut nga accompagner leen donc ñun exigence ay di tamit ñëw leen fii suñu réew créer suñu cabinet exigence a été pour accompagner euh, le secteur privé les tous les entreprises mais aussi toutes euh, les personnes yoo xam ne ñu ngi nekk ci ay besoins soxla soxla soxla liggéey ñu leen di accompagner dans leur insertion professionnelle donc exigence a été au niveau Sénégal euh, bien sûr c'est c'est c'est c'est le mot d'ordre te ñu ngi fii tamit l'objectif mooy ñu accompagner leen ñu ngi ci ñu ngi ci tànk yooyu. le climat de l'entrepreneuriat au Sénégal tey ban gis-gis ngeen ci am. gis-gis bu mu ci am mooy euh, dafa am loo xam ne mooy base de toute chose muy euh, éducation xamoo euh, aujourd'hui on parle beaucoup de chômage des jeunes mhm. te soo jëlee un continent comme l'Afrique où presque soixante-dix pour cent de sa population a moins de trente ans soo jëlee ci soixante dix pour cent yooyu quarante pour cent de cette euh, jeunesse n'ont même pas accès à l'éducation amuñ formation boo xam ne c'est une formation qualifiante donc dangay gis ne dafa am benn écart boo xam ne euh, je peux l'appeler c'est une inadéquation entre euh, l'offre et la demande c'est-à-dire aujourd'hui mm-hmm. nu ñuy former ndaw yi par rapport ak li fi euh, nekk ça correspond pas par rapport aux, aux, aux réalités du marché mm. donc équilibre boobu noonu moo manqué wu pour ñu mun a euh, créer vraiment benn symbiose boo xam ne mooy permettre lépp loo former comme comme ressources humaines di nga ko mun a wutal liggéey tout à l'heure j'ai j'ai écouté avec euh, passion euh, première euh, partie bi euh, on parlait beaucoup de des ressources naturelles des de de l'or du pétrole du diamant donc Sénégal ça veut dire que am na am na ressource bu nekk mais man dama gëm ne la première ressource boo xam ne le Sénégalais war a am muy ressources humaines tu peux avoir de l'or mais quelle expertise tu dois avoir pour exp exploiter ces ressources euh, naturelles donc lu war a jiitu mooy euh, toujours ressources humaines te ressources humaines boobu dafa manqué aujourd'hui Sénégal d'un point de vue euh, accompagnement mais aussi d'un point de vue mise en place des dispositifs nécessaires mooy permettre ni ku nekk ci loo yëngu rek di nga ci am benn qualification boo xam ne moo lay permettre baa nga mën a say activité et benn impact s'active beaucoup ci mbirum formation peu importe le secteur ak le domaine mais comme euh, ni nga ko waxee tout à dañuy am problème insertion wala li ut liggéey ci domaine yooyu noonu loolu est-ce que dañuy wax ne formation yi ñuy def moo nekkul formation de qualité wala dafa nekk formation yoo xamante ne amalul njëriñ Sénégal non je dirais pas que nekkul formation de qualité parce que man doomu Sénégal la fii la jànge fii la amee sama bachelor avant may dem Paris te bu ma demee tamit gisuma fa Euh, benn benn benn écart boo xam ne sur la qualité de l'enseignement au Sénégal par rapport à ça je peux dire même on est un petit peu à l'avance parce que ñu fi jógee ko yëpp di dem Sénégal di dem Afrique di dem par exemple Europe di liggéey foofu daa nekk ñoo xam ne ils ont vraiment une réelle expertise donc il y a une formation locale qui est bonne et qui a salué mais lu ma bëgg expliquer mooy Euh, instant yi formation bi c'est trop théorique et c'est pas pratique il faut qu'on professionnalise la formation euh, tey soo gisee man su ma ñëwee Sénégal mun naa wax ne du ma am vacances damay nekk ci école yi damay nekk ci euh, jeunesse bi di leen di accompagner di leen di former dans l'insertion professionnelle mais tu vas voir quelqu'un qui a un diplôme un bac plus 5 même un doctorat mais il sait pas quoi faire après à l'issue de sa formation donc wala koo xam ne def na plus presque dix huit ans d'études il n'a jamais effectué un stage de de de de même de six mois pour pour mettre en pratique ce qu'il a appris et ça c'est très grave même si oo demee France da nga gis koo xam ne xale bu ndaw la day def BTS mais l'État exige pour chaque formation avant nga am diplôme bi am benn benn benn benn benn benn benn expérience boo xam ne moo lay permettre aujourd'hui à l'issue parce que fii da ngay dem ba jàng on te demande rek d'expérience yoo xamante ni yow ci sa bopp sax defoo formation bu toll noonu loolu mooy lool mooy problème bi il mm. faut qu'on révisite un petit peu le système éducatif te man mun naa wax ne le système éducatif du Sénégal c'est un système qui est obsolète il faudra vraiment une réelle politique euh, de changement de ce système éducatif basé sur bien sûr la formation mais aussi euh, les enjeux du monde actuel parce que monde day évoluer tey su ñu waxee ne am neen or am neen diamant mais kan mooy exploiter suñu ressources yi mm-hmm. c'est bien beau de dire que oui on va gagner ça mais bien sûr ce sera toujours euh, les gens de l'extérieur ñooy ñëw implanté wu mun a jël marge yooyu noonu donc il faut vraiment qu'on mise sur l'expertise locale mais aussi qu'on mise sur euh, les ressources humaines euh, lu may déplorer tamit au niveau euh, étatique ou bien au niveau en tout cas du fonctionnement de ces pays mooy on tend pas comment dirais-je appel aux gens de la diaspora parce que dama foog ne gars yi dañ jàpp ne ban rapport rapport bu diaspora bi ak Sénégal yi am c'est toujours un rapport basé sur l'argent c'est-à-dire le transfert d'argent alors que tey la diaspora regorge des ressources yoo xam ne man ça fait 15 ans je les ressources humaines mais dans tous les secteurs d'activité quelles que soient les grandes sociétés il y a toujours des Sénégalais ñu exploiter seen euh, expertise. bien sûr on les exploite pas da ngay ñëw am sa expertise bëgg ko mettre en place au niveau local mais il y Aujourd'hui, tu Lié me parles d'exigence. Bah, à l'accompagnement ou bien à la mise en place des dispositifs. Man, ça fait presque trois ans, maa ngi ñëw Sénégal juste pour implanter ou pour créer. Voilà, mais aujourd'hui pour avoir des dispositifs qui te permettent de s'insérer et de mener quelque chose au niveau local, c'est tout un problème, malgré les volontés, malgré les sollicitations et tu demandes pas de l'argent. expertise Sénégal daf ko doyal aujourd'hui ci monde bi mais il faut qu'on fasse cet appel pour que les gens qui veulent venir investir et faire des choses au niveau euh, local ñu faciliter leen leen pour ñu mun a def ay action yoo xam ne dina mën a jëriñ Sénégal mm. donc euh, loolu mooy problème bi il faut vraiment que et ça aussi pour mu am il faut que l'État tamit am beneen euh, regard boo xam ne euh, day permettre dem def des chercheurs de tête dem chercher ñoo xam ne ci diaspora bi leen ñu ngi am benn expertise ñëw def benn mayonnaise boo xam ne c'est vraiment de mélange entre euh, les ressources mais, loolu souvent ça euh, ça peut vous démotiver wala wala wala parce que bon xëy na euh, aussi neexul nga ñëw am sa expertise am sa ay proposition yoo xam ni hmm. peut-être yaakaaroon ni dina mën a euh, facile ñu ñu ñu yombalal leen ko mu am ay blocage ay contraintes est-ce que c'est une raison pour vous de d'abandonner ou de de de rester quand même à l'étranger non jamais parce que ñun Sénégal lañ lañ lañ lañ juddoo tey su ma bindee livre bi tuddee ko l'adversité mon allié euh, maa ngi ci wax ci lépp loo xam ne ci ci Saloum bu ma jógee donc dañu am loo xam ne dañ muy Sénégal boo xam ne sénégalais dafa bëgg réewam les gens qui au niveau de la diaspora coono bu ñuy daj matin soir lépp c'est pour le Sénégal donc ñun lépp lu ñuy def par rapport à, à l'Europe c'est vraiment pour s'implanter au niveau local et quelles que soient les difficultés on va jamais abandonner parce que loolu moo ñu ñor euh, aujourd'hui on doit contribuer par rapport à l'édifice de cette nation et que loolu je pense que ni ku nekk quel que soit son niveau d'expertise quel que soit euh, son euh, bah ses, ses, ses compétences ou bien ses aptitudes doit aujourd'hui apporter cette cette cette contribution donc impacter moo entreprendre et lépp lu ñuy def rek dañ koy def par rapport ak euh, pour notre pays et aujourd'hui on a mené beaucoup d'actions par rapport au Sénégal aussi. Le Sénégal également a mené beaucoup d'actions pour euh, euh ses fils hein, de, Bien côté politique de l'extérieur. On a un directeur chargé des Sénégalais de l'extérieur. Il y a également le ministère qui est là, euh, le ministère des Affaires étrangères euh, étrangères ba si ay député yoo xamante ni fal nañ leen lu yàggul dara boole leen ci ci ci Assemblée nationale rien que pour la diaspora est-ce que euh, malgré lépp li nga xamante ne teg nañ ko yéen yéen ngi gis seen bopp ci politique extérieure bu état Sénégal. ba man su ma waxee dëgg rek politique extérieure man gisuma ci sama bopp et je pense qu'il y pas mal de personnes aussi gisuñu ci seen bopp Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne y beaucoup de favoritisme. il y a beaucoup de choses liées à la politique dañ jël lépp accentuer ko par rapport à la politique et on pense que on peut développer le Sénégal que par la politique et ça c'est archi faux et euh, aujourd'hui euh, ñun euh, ñuy entreprendre wala ñun ñu nekk ci domaine boo xam ne insertion professionnelle ou bien dans le domaine transformation digitale lépp lu ñuy def solution yuy déployé yëpp là aujourd'hui on a déployé une solution pour la digitalisation du système éducatif suñu amee nekkee doomu Sénégal di koy exploiter dans d'autres pays tels que Rwanda dans d'autres pays comme euh, à, à, en Europe et que yow en tant que doomu sénégalais nga créer aujourd'hui cette solution boo xam ne ça peut révolutionner le système éducatif tu viens tu fais appel à tous les ministères tu fais à toutes les autorités et les gens t'ouvrent pas la donc il y problème est-ce que qu'aujourd'hui on a euh, ce qu'on appelle un problème de priorisation des priorités dañuy jël xaalis bu bëri di koy investir dans d'autres domaines yoo xam ne euh, c'est pas les priorités. mais quand même dinañ jot a gis seen ko euh, s'enquérir un peu du projet. avant Le... de décliner ou bien peut-être euh, de rester à le, le le problème qui se pose ñun ñëwuñ pour laaj xaalis ok parce que aujourd'hui si on entreprend c'est pour impacter mais tey soo amee sa solution nga xam ne lii luy jëriñ réew mi la mm. soo ñëwee dañ ko war a examiner euh, échanger avec euh, les porteurs de ce projet même recevoir la même aujourd'hui da gis ñoo xam ne Europe lañu nekk ngeen toog waxtaan ci ay projets am solo mais une fois que tu viens au Sénégal euh, non ils te reconnaissent plus Et ça, c'est vraiment lamentable. C'est ça qui pose autant de problèmes. Mais nous, on continue les actions. Et les actions duñ ko mos a bàyyi parce que Sénégal la ñu am Sénégal euh, fii la sunu sunu sunu sunu waajur yi nekk te lépp lu ñu def tamit il faut mu am impact. Donc il y a vraiment un problème euh, lié à cela, mais malgré tout, je garde vraiment espoir par rapport à cette euh, jeunesse parce que la jeunesse pour moi c'est l'alpha et l'oméga du développement amul benn réew boo xam ne mu ngi développé sans pour autant miser sur sa jeunesse et la seule chose qui est plus importante maintenant c'est de baser sur une éducation de qualité nga xam ne képp koo xam ne mu ngi jàng di nga am benn insertion professionnelle mais tamit luy poser problème côté insertion professionnelle nekk na secteur informel bi tey soo nekkee euh, chef d'entreprise boo xam ne amoo des papiers qu'il faut pour entreprendre les gens qui travaillent pour toi il y a même pas de salaire minimum ou bien de salaire euh, dañuy exploiter jeunesse bi ci dans tous les tous les sens et ça c'est vraiment euh, faut vraiment ñu régulier mm-hmm. euh, le système éducatif mais aussi le système emploi jéem dem jël appel à toutes les personnes yoo xam ne ñu ngi œuvre dans dans dans dans dans ce domaine comme ça ñu mën a liggéey en parfaite symbiose parce que Sénégal ku nekk war na ci gis boppam ci son mm-hmm. développement. et et pour terminer en matière de transformation digitale yaa ngi koy wax. Mm-hmm. Euh, tout à l'heure est déjà. gis nga ni Sénégal accueillir na genre euh, métier bu mel noonu wala xeetu euh, gisin bu mel noonu nga xamante ni ça peut cibler beaucoup de secteurs euh, tey déjà yan secteur ngeen gis ne tey en matière de transformation digitale mbir moom mu war yéen am am ngeen ci ay propositions wala ay solutions. D'accord. Euh, là actuellement euh, on parle plus de révolution industrielle voilà on parle vraiment de révolution numérique avec la digitalisation de l'information information moo nekk loo xam ne aujourd'hui c'est la clé euh, de toute une nation euh, nous secteur bu ñu nekk mooy transformation digitale bien sûr on a déployé euh, benn solution boo xam ne muy euh, Exigence School c'est un logiciel de digitalisation du système éducatif c'est-à-dire euh, automatiser le système éducatif de l'inscription jusqu'à la remise de diplôme donc tout université ou bien école, il y a trois parties prenantes, voire quatre parties prenantes, c'est-à-dire les étudiants, les parents d'élèves, les professeurs, mais aussi le corps professoral. Et que le but, moi, nous avons des solutions képp koo xam ne yaa ngi nekk di euh, ci réew i bëgg jàng wala bëgg euh, def des choses au moins tu on peut avoir accès à l'éducation on veut vraiment démocratiser le système euh, de l'emploi mais ça n'a rien de discriminatoire comme c'est du digital et du numérique. non non pour ne sont pas du tout. C'est c'est ça c'est ça le but aujourd'hui on doit avoir donné accès à tout le monde à l'éducation mm. et pour cela il faut ñu ñu ñu ñu digitaliser le système éducatif professeur yu nekk Europe bëgg a joxe ay cours ici au niveau euh, de de la diaspora ñu def ko am na ñoo xam ne après seen diplôme euh, de bac ils n'ont pas les moyens pour venir à Dakar faire leurs études et loolu mooy solution bi il faut vraiment qu'on digitalise tous Merci. les systèmes que ce soit dans le domaine privé dans le domaine euh, administratif mais aussi dans dans dans tous les tous les domaines d'activité. Merci beaucoup ma bàyyi nga tàggoo comme waxtu bi moo ñu xëcc. waaw maa ngi maa ngi maa ngi jëfal ñëpp di jaajëfal mbokku Sénégal tension bi tamit euh, au niveau euh, Sénégal ñun ñu nekk diaspora ñu ngi koy métti lu trop et loolu nekk na loo xam ne lu nekk lu rafet pour l'image du Sénégal euh, aujourd'hui moi je pense à mon namble avis que on doit apaiser le climat social mm. mais loolu pour mu apaiser wu tamit il faut qu'au niveau du gouvernement en l'occurrence du président mettre en place une élégance politique képp koo nekk am euh, am am comment dirais-je volonté pour nekk candidat qu'on équilibre les choses ku nekk am sa possibilité faire les choses telles qu'elles sont mm. sans pour autant cibler ou bien faire les choses autrement merci beaucoup Moustapha donc moom lañ fi euh, dalaloon dégg ngeen lu ñu doon waxtaanee wàllum entrepreneuriat ak surtout lu jëm ci moom domaine bi nga xam ni fa lay yëngu muy mbirum euh, transformation digitale merci beaucoup à vous chers téléspectateurs di leen jox rendez-vous demain incha allah ci beneen numéro bu Matin Bonheur excellente journée à vous.